waaw sëfa sëfa sëfër bi nag ma ne ko sëfa sëfër bi nag laaj naa ko pano yi mais nee na ma pano yi ko sàcc gars dañ koy sàcc jaay ko feeraay dëkk bee dëgër nag waaw tali bi moom lépp li ci war a am mooy bind yi bind am na solo waaye bu fekkee tableau yi war a war a vitesse gars koy daaj ko sàcc ko jaayee nag loolu lan la si war a nit mën rek dara waaw chauffeur warul tox dawal tox bu toxee warta dawal